الدجال ñun di ñu seetaan eh, ñoo ngi amaan mbégte ànd ak yéen ci liggéey bii nga xam ne mooy liggéey bi Serigne Sidi Naar Diène di liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul te ndigal li bàyyi ko woon ci Serigne Mouhamadul Mountakha waaye njëkk a bàyyi ko nag Serigne Touba Cheikh Sidiyal Muxtaar mu bokk ci ñi mu mujj a jox ci ak euh, xilaafaam waaye Serigne Mouhamadul Mountakha it mu bokk ci ñi mu njëkk a yeesalal seen ndigal ci ak xilaafaam muy liggéey boo xam ne fii ñu taxaw mooy salle de conférence bi nga xam ne moom lañuy ñuy defal Touba. lool nag ñoo ngi toog ak maître maçon bi di Serigne Mout Sey moom la ñuy àndal rek ci tolluwaay fii nga xam ne daa bi toll na ci waaye lii ñu jàkkaar loolu it luñ kuulee gudd la mu wax ñu fi liggéey bi toll ak fi nga xam ne fi lañ dese kon sëñ Moussa ñoo ngi lay nuyu. bisimilah liggéey bi moom nii nga ko gisee rek ni la demee ndaxte ban tàmbalee ba tey noo ko ànd ak yow état yi jëkk yi ci fondation bi gis nga ko ni mu demee woon yeneen état yi ci des itam ñëw nga fi gis nga ko ni mu demee woon état bii ñu def nag moom dafa ànd ak lu bari ci ciment ak fer ak wàllu électrique bi ndaxte dafa muy kii di Talla Sall moom mooy suñu financier bi nga xam ne mooy nekk Dakar lu ñu soxla moom lañ koy laaj wante fi mu nekk dañ cee dugalaale affaire électrique boo xam ni moom mi ko ciy dugal xam na ne mi ngi ciy dugal lu bari liggéey bi nag nii rek la demee boobaak léegi noo ngi ko ànd ak yow gis nga ni mu demee coulage bi noo ngi ci fi ne tey jii ñoo ngi séentu 24 tonnes ni deen ko utiliser. 24 tonnes noo ngi séentu ni deen ko utiliser ci li ñuy war def tey rek gis nga ko daal moom liggéey bi nii la demee daanaka amul commentaire ñun ñëpp noo ko gisandee. fii ñu tiim moom ab kaas lay doon ab kaas lay doon boo xam ni lii nga gis lépp kaas lay doon boo xam ni dégg nga koom moom bu nu kuulee ba pare ci la ñuy war a taxawaat nag dañu ci taxawaat autour luy toll ci dañ ci taxawaat daal logo ay quelques mètres da ko euh, yëkkati kaas bi ci loolu lañ toll côté bii ñu nekk nag moom étage lay doon moom itam euh, day déborder ci kaw kaas bi day déborder ci boori kaw kaas bi moom daal noonu la demee liggéey bi daal mi ngi nii euh, mi ngi nekk 35 mètres sur 32 mètres brique bi rek sans compter euh, véranda yi ci ginnaaw waaw li ñu soxla rek loolu la fi mu ne. dañoo yóbbaale courant bi ndaxte fil yi ñuy yor dafa dijj di jaay goo xam ne mu ne su koo def ci fil di ko nas di ko ñeddiwaat moo tax moom il faut dañ koy yóbbaale. Talla Sall mii fi mu ne barki démb rek fi ne actuellement lim ñu yóbbaale sax loxo soxlawul ñuy laaj wax som bi parce que liggéeyal Sëñ Tuubaa moom amul som ndax bu sëñ di jaaree di def fii li ma ci gën a ñor daal ñun ay liggéeykat lañu te waxtu wu nekk. lu mu ci mën a doon sëriñ bi moom danaa lu ngeen soxla bala ngeen caa àgg nag ma ko jox loolu daal moo ñu ci gën a ñor moom daal dëbb dëbbuñu ko ci genn wet moom. da ngeen a yóbbaale lépp dañ ko yóbbaale loolu lépp dañ ko yóbbaale waaw loolu lépp dañ ko yóbbaale loolu lépp sonorisation beeg électrique beeg lépp dañ ko yóbbaale ndaxte façon câble bi mu soxla day câble boo xam ne moom mënuñu def rek lu dul yóbbaale ko parce que mënut a nekk loo xam ne dañuy amaat yeneen étapes yu ñu koy yu ñu di ko ci defaat parce que bu boobaa mën na am problème ñaata weer ngeen tolloo. fi mu ne ñoo ngi ci dugg ay quatrième mois xam naa ci la ñu war a toll. fii bu doon sànc boo xam ne rek da nga ko ànd. ah lii bu doon sànc boo xam ne dama taseeg sama nawle mu di ma ko jox il faut damay digg moom trois cent et demi doog cee mën a dugg étape bii rek ma toll kon dinaa digg moom at genn wàll doog cee mën a euh, doog ni ko de laay doog a mën a fii. en tant que chef maçon yow kon loo gisee ne liggéey bi gaawaay bi lan moo ko liggéey moom dañoo delloo si jàmbaar jan àndalan muy sëñ naar mhm. sëñ siidi mii nag sunum xel dal na lool ci moom ndaxte mel na ni tey jii sëñ naar moo dellu si waat ndaxte lii ci moom dong lañ ko daan gis waaw kon moom sëñ naar sëñ siidi moom dolli na dolli na suñ dëgëraay suñ dëgëraay dolli nañ ko dolli nañ ko wóolu it ndax xam nañ ni naar jógu fi nan nga gisee jàmbaar yi àndoon ak sëñ ngi taxaw kenn wànki wut te daa dolli sax yeneen jàmbaar feeñ na fi yoo xam ne daa dolliku sëñ sëñ si daal ku ñuy ñaanal lañ ko yàlla yàggal ko fi te wéral ko loolu rek lan soxla wa salaamaaleykum. jërëjëf mbokk yi ñoo ngi wéy ànd ak yéen fii ci liggéey bi ci euh, waañ wi euh, ni ko sëñ Sidi santaane ñoo ngi jàkkaarloo ak nag ki nga xam ne moo di soxna Mati Gueye euh, mi nga xam ne moo jiite waañ wi diirub bañ tàmbalee liggéey bi ak léegi mu ànd ko ak sëñ Sidi Naar naa ne waañ wi. bu ñuy wax liggéey bi rek waañ wee tax day mel ne bañ tàmbalee liggéey bi ak léegi amul benn bis moo xamante ne bii nit ñi liggéey si xëy si nañ ñu mar wala ñu xiif taxawaay boobu. asalaamaaleykum bañu nuroo sant yàlla sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di ñaanal sëñ Sidi mu sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal nag sëñ Sidi Naar Dieng loolu mu gudd fan te wér waa ñi moom bañ dalee togg ba léegi mosu fee fee xiif mosu su fee kenn mus fee am benn jafe-jafe jigéen ñaa ngi ni mboolem mboolem jigéen ñaa ngi ni kenn musta manqué ñaata weer ñeenti weer juróomi weer liggéey musta taxaw musta manqué ni delloo sant ñaanal Cheikh Sidy Nar Diène saa borom defal ko kattan defal ko wér defal ko gudd fan goo xam ne kii day gudd day dund dund sans ordonnance defal ko fan. gis nañ ne tey jii ngeen xëy see fekk nañ fi ay ndekki ngeen soog a taal añ yi. waaw ndekki yéen saa ne nag noonu la. bis bu set la bis bis bu set mbaa nag café suba mbaa nag ngoon. mburu mi du fi jóg beñe bi fi jóg gerte gi du fi jóg dara jeexu fi ci barke Cheikh Sidina Ardiène noo ngi ñaanal sëñ Sidina Ardiène mu yàgg fi lool te wér yal na ko saa borom guddal fanam mati géey mi nag yal na yàgg fi sunu kanam def ko lool fan wu lool te ànd ak wér maa ngi ñaan ci dara jeey Cheikh Sidina Ardiène ku ñëw fi rek yal na fi teewaat bu ñu jéem jéem bu kenn manqué ci kattan ak Cheikh Sidina Ardiène jërëjëf jërëjëf